maa ngi tudd madame Yoni Thiam Wade nekk responsable politique APR bokk évidemment Benno Bokk Yaakaar je suis sociologue aménagiste de formation voilà tey ndaje mi li ko yittee lenn la dañu jóge ci élection locale yi ak élection législative ñu gis ni rien ne marche ici à Rufisque te nag bu ñu xoolee xam ni président de la république moo fi am majorité li indi woon loolu ay division la parce que kenn ku ne da nga japp ni xër rek la kenn ku ne da nga japp ni man rek mën naa fal président Macky Sall beneen bi aussi mooy un mauvais choix aussi def ci jouer nu jóge ci loolu ñu ne pourquoi pas nu daje on est conscient que la division et la pluralité candidats yi mënul gañaloo dara ma tegoon récemment benn cercle des cadres cercle des cadres politiques cercle des cadres politiques ce n'est rien d'autre qu'un cercle des responsables politiques pour lan ñuy échanger du xol yeen bebet lañu wara war a jël fàttali nekkoon suñu takku wat ndax gis na ne le président de la république c'est le meilleur président du siècle def fi lo xamni nak au niveau national mom la tuddee ki nga xamni ne day xëy di euh, di inaugurer ay projet ak di di lancer ay projet ak di inaugurer lolu moy mission président de la république. dara doxul ngeen est-ce que dara nga dox ba mel dara doxul waaw man de japp na ni mi ngi dox te tay ji li ma def wane nako man Adja Yoni cham dama takku ak sama ay nawle Mariama Adja Mariama Dia ngi ni madame Dia Mariama sa ku na xam ni lion la ci département bi ak ñeneen ño xam ñi ngi fi ño ñew dajolo tay pour lan pour jema bolé xol

am na yeneen responsable yoo xam ne ñu ngi teg seen dëgg ñu ngi nii tey ñëw na nu taxaw loolu moo tax gisoo leen fi kon parti bi deewul. non parti bi musul dee ndaxte président moo nekk ci xolu nit ñi. li ci des mooy boo xoolee statistiquement ab président Macky Sall moo gañe woon ndaxte boo xoolee ñu ànd ñu demoon coalition parallèle yëpp ñëpp ku ci ne régime président Macky Sall nga doon défendre. mais tey division boobu comme li ma wax rek ku ne da nga jàpp mën nga fal président mais bu nu bokkee ndey bokk baay am naa yaakaar ni dañuy dem. division bi jeex na division bi ah, man de ci lay dox gisuma ne division amna ndax ndaxte actuellement dootul intérêt personnel Macky Sall moo soxla moo tax bii yoon day changé ndaxte kaaral bi amna amna ño xamni xeyna xam ne xëy na waroon na mën a mën a lu tax jógunu ku ci ne nak yaa def sa politique à sa manière man lolo, waral tay ma jog pour vous la voix ndax ku na xam département bi bob ba ah je pense que c'est la première fois nous avons ndaje objectif bi lan comment réélire le président de la république Nous nañuy un cadre xalaat yu cadre politique intellectuel parce que cadre intellectuel ñu ngi cadre politique yi nous cadre intellectuel politique actuellement dama le cadre politique Nous tey des de droit